non c'est c'est ça dañu dañu dañu nërmeel démocratie démocratie sénégalaise démocratie sénégalaise depuis bi mu ñëwee au pouvoir boo leen seetloo 2012 acte bu mu posé mooy lan pour s'éterniser au pouvoir pour être réélu lu muy def mooy faagaagal des adversaires politiques pour véritablement jëlaat le pouvoir aujourd'hui nee na du bokk mais ki muy teg li mu bëgg def mooy assurer la continuité loolu nag sénégalais ñoo ko war a bañ sénégalais tey ñoo war a bañ nii Macky son règne euh, ak son son son euh, n'est-ce pas son euh, Macky ak ay ñoñom mburu la foofu ko fari. 6 ak 9. 6 ak 9 la. kon donc kon nga foog ne Macky Sall mooy Amadou Ba. waaw c'est ça Amadou Ba est l'ombre de Macky Sall. donc on doit se battre pour que ñoom sax tey scandale yi ñu fi defee ak yépp ak échec bi nga xam ni Sénégal yi ndotte na ko ci seen gestion tey waruñu woon sax dem ba naan dañuy présenter candidature. aujourd'hui li ñu war a def mooy organiser des élections libres et transparentes inclusives ku bëgg a bokk bokk du ñu faagal kenn bu ko defee ñoom ñu dem toogi parce que lajj nan lajj nan sur tous les plans sénégalais yi dañu doyal ci ñoom. mais sénégalais yi aussi dañ ko ne woon amul droit def troisième mandat mais mun na choisir ku ko neex loolu tax moom it mu choisir ku ko neex. xam nga duñu wax sax ci choix ba parce que ñun bu ñuy wax choix d'un parti ça doit des bases démocratiques. parce que un parti mënul tëb rek choisir ku ko neex moom en personne di choisir alors que la base n'a pas dit son dernier mot. non c'est le, c'est le problème de oh, parti. non justement je dis cest dans dans dans régime démocratique normal. Mhm. un parti bu war a investir un candidat la base moom moo war a investir à travers un congrès d'investir ni diw mooy suñu candidat mu am ay primaires et tout kon donc loolu ñun sa ne nous regarde pas mais je dis que. loolu li muy undu mooy mhm. Macky moo fi bëgg a continuer di vous vous souvenez du du syndrome Poutine Medvedev. d'accord alors pour le contenant pour le cas de Sonko euh, dissolu dissoudre nañu partem mi ngi en en prison ba pare ñu radié ko carrément ci liste électorale bi euh, on peut dire que maintenant c'est fini pour Pastef. non parce que am na comme ni ko Pa Moussa waxee am na ay voies donc euh, juridictionnelles yoo xam ni amaana ñoom dinañ ko jël mais aussi loolu xam naa ni bu ñu ko toppee comme ni ko Pa Moussa waxee. am am nañ yaakaar ne ëllëg mën na mën na am euh, n'est-ce pas gain de cause par rapport ak euh, donc recours yooyu nga xam ni xool nañ ko mën a tant normalement n'est-ce pas boo ko defee nag li ci des nag c'est un combat démocratique l'opposition de manière soudée ñooy continuer xeex tout ce qui est injustice ak lépp yi nga xam ne acharnement sur un opposant politique loolu je pense que c'est un appel boo xam ni dañ koy lancer à l'opposition ñu ñu faire face parce que am na yoo xam ni waratu fi am war jeexal na na dem bàyyi ñu ak afia ñu organiser ay xam ni ku bëgg bokk di nga bokk. duñ xañ kenn sa candidature. sa waa parti est-ce que duñu am un peu de regret je m'explique parce que euh, koo xam ne ku a des liens très bu na chance il fait l'unanimité avec recul est-ce que doon am tuuti regret a bokkoon ci Yewwi Askan Wi. Euh, non pas de regret savez bon ñun l'histoire de Yewwi Askan Wi c'est derrière nous. parce que ñun quand même euh, on est un parti qui se respecte alors on roule pour des principes bañ fa bokkee lañ fa waroon wax wax nañ ko lañ fa doon xeex xeex nañ ko en interne moo tax duñ xaaral ba tey di wax on regrette et tout boo si si vous même ci élection législative yi si vous rappelez de l'intercoalition Yewwi Wallu c'est Boubacar qui est l'instigateur moom moo ko xalaat théoriser ko teg benn forme teg un schéma dox ko ba mu nekk kon donc Boubacar li ko mos a yitteel mooy l'unité de l'opposition et bu ñu ko toppoon aujourd'hui li xew Assemblée des femmes dañ doon am vraiment Euh, imposer Macky Sall cohabitation. Mm-hmm. malheureusement en son temps les gens ne l'avaient pas écouté pour des intérêts donc euh, quelconque yoo xam des parti mm-hmm. tey ñu exifie. Mm-hmm. li ñu ci waroon wax yëpp wax nañ ko. l'histoire lui a donné raison. l'histoire lui a donné raison parce que li ñu ci waroon wax yëpp wax nañ ko bu ñu àndoon ñun ñëpp aujourd'hui tey li xew nii du am. mais bon. quoi qu'on lu banti am mooy le PSS Diengu Taba ak le président Boucar Camara a toujours roulé pour des principes fépp muy dem li muy taxawal jiital mooy intérêt askan wi Sénégal moo tax mhm. aujourd'hui dégluwuñ ko dem na ba fii li xew xew na maintenant li des mooy ñu ko les morceaux et aussi jéem a xeex pour que diir fii léegi élection présidentielle yi que képp koo xam ni opposant war a bokk nga bokk ci élection yi. d'accord alors euh, Pa Moussa yow volet juridique bi laa lay soxla na fan lañu ñuy sukkandikoo ba ne Ousmane Sonko nekkatul électeur de ce fait euh, il peut pas être candidat pour la présidentielle de 2024. D'accord xam nga xam nga bon la question de de de recul démocratique Sénégal je n'ai plus besoin de faire les defal gars yi coquille parce que mhm. c'est assez clair que ni euh, fi mu toll nii Sénégal li muy dund bu ko nit tuddee démocratie euh, xëy na il a une autre définition mais bon dinañ ci euh, ñëw tuuti mais le cas Ousmane Sonko. Mhm. ak li ñu wax ne radié nañu ko balaa balaa balaa ñu dugg dans le fond nañu apprécier déjà la forme parce que dañ ne. génne nañ acte euh, de notifi euh, notification mhm. léegi euh, code électoral moom moo wax parce que pour que ñu mën a comprendre il faut que l'on soit textuel dans ce que l'on dit L40 code électoral nee na un citoyen qui est inscrit sur les listes électoral pour ñu mën koo radier foog mu am décision de justice motivée déjà motivation bi ce serait dans le fond mais aussi notifier ki nga xamante ne moom lañ ko war a jox pour mu mën a xam ne acte de radiation am na. kon dañoo war a yóbbu fichier bi jox ko Ousmane ko ci bokk loxo ak loxo. fo justement loolu pour ñu xam euh, mécanisme de notification bi ni muy demee euh, da ngay génnaat code électoral parce que l'acte en question c'est un acte administratif. acte administratif individuel donc kon boobu noonu foog nga dem ci loi bi nga xamante ne moom moo organiser loolu euh, c'est une loi de 2021 2021 21 du 2 mars 2021 boo xoolee à son article 12 mu ngi wax ni notification naka lañ koy defee ki nga xamante ne euh, acte administratif nga ko jox dañ ne da nga ko koy jox au dernier demeure connu ci nit ki maanaam sa résidence résidence justement euh, résidence a une définition juridique donc tey jii nii Ousmane Sonko fan mooy dernier résidence am bu ñu xam pourtant pas c'est la ah. prison de Sébikotane c'est vrai <laughs> donc kooku foofu nga ko koy joxe jee boo ko mënul joxe foofu loxo ak loxo c'est-à-dire pavillon spécial justement donc dernier demeure mi ngi noonu soit foofu wala nga jox ko ko loxo ak loxo actuellement ce clair moom mooy Ousmane Sonko recevoirul loolu noonu ci dernier domi parce que loolu loi bi moom moo ko wax. noonu moo ko jamono ji acte de notification bi mi ngi sous préfecture bu Dakar Plateau. pourquoi alors que ni l'article en question bi ma lay wax nee na da nga ko koy jox ci dernière résidence bi ñu xam ci moom à défaut de euh, Sébikotane xanaa sax cité kër góor gi Serigne defuñ ci loolu donc vice de forme bu clair mu ngi noonu que ni euh, jotul euh, notification boobu noonu donc kon cet acte de radiation la on peut pas le donner à ses à moom kese lañ ko mën a jox. mais loi bi loolu la wax dura lex ma lay wax texte moom moo ko organisé la loi 2021-21 euh, du 2 mars 2021 nañ ko xooli ji à son article 12 dafa ne dañ ko koy joxi à sa dernière résidence bi ñu xam. donc loolu c'est clair léegi euh, tey jii nii boo ko bu dee bu dee bu dee notification boobu jot na ko directement am euh, euh, main à main wala ñu yóbbu ko à sa dernière résidence connue xëy na dañ ne woy bu boobaa kenn mënatul waxati waxu contumace. Mhm. parce que dans le cadre de cette affaire de contumace procureur nee na jàpp ko ci mbirum contumace bi. mais kenn mënul wax ne notification bi du mbirum contumace bi. c' est la même boobu c' est c' est le même dossier. waaw ah, nee ci mbirum vol portable lañ ko jàppee. waaw kon ko boobu garaawul nee moom beneen dossier la dossier wu Sweet Beauté gisul Ousmane Sonko ba tey y' souci mais ci biir contumace boobu noonu boo ko joxee cette notification ah notification bi moom mënoon ne ci dossier boobu daf ci génn c' le même dossier est ce que du looloo tax ñu bañ ko koo joxe ji directement pour bañ koo gis ba tey point d' interrogation mais euh, voyons voir est ce que Ousmane Sonko. est dans un état de contumace pour ñu mën ko radier ci euh, fichier électoral yi loolu laay dugg dans le fond mhm. parce que euh, boo euh, demee ci L29 moom dafa ne ne peut pas être inscrit sur les listes électorales mhm. celui qui est en état de contumace ne peut pas être inscrit mais Ousmane Sonko il est déjà inscrit mhm. non il est déjà inscrit lui mënoo inscrire ak dañ lay rajee bokkul parce que man dama bëgg rek ñu interpréter les lois de manière stricte L29 dafa ne ne peut pas être inscrit sur les listes électorales celui qui est en état de contumace waxul ne doivent être radiés de la liste mais bon. Euh, c'est clair c'est du français. voilà celui qui est en état de contumace maintenant c'est quoi mooy ki nga xamante ne moment bi ñu lay jugé kenn gisul la kenn xamul. foo nekk mais euh, un état de contumace c'est un état précaire c'est-à-dire. yoon bi la ne la euh, mën nañ ko radier yoon boobu moom moo joxewaat des mécanismes de sortir de cette euh, situation de contumace maanaam bu ñu la téyee rek contrainte bi day tëb. première euh, condition deuxième condition moom mooy que l'individu ñëw jox la boppam s'il se constitue. article 307 code de procédure pénale s'il se constitue wala s'il vient à être arrêté euh, contumace bi euh, moom génn na ci alors donc ñoom arrêté nañ ko nee nañ arrêté wuñ ko ci kii mais est-ce que gis nañ aussi l'accusé de réception bi nga xamante ne greffier bi def na ko ci l'acte de non acquiescement bu Ousmane Sonko. moom euh, génne nañ clairement euh, dûment signé que ni acte de non acquiescement Ousmane Sonko envoyé na leen ko ba ñoom defal nañ ko accusé de réception mhm. donc acte de non acquiescement moom mooy man d'accorduma daal mais balaa ngaa d'accord ak balaa ngaa bañ a d'accord il faut que nga ne leen maa ngi mhm. ki ne la man ma mais kooku impérativement war na la mu ngi si sa loxo absolument donc kon euh, même l'accessoire suit le principal donc foofu noonu mënoo wax sax ni Ousmane Sonko ci situation contumace actuellement la nekk. Mhm. Ousmane Sonko qualité de contumace am tëb na moment bi ko jàppee mais ñoom comme que nangu wuñ jàpp bi tëb na moment bi nga xamante ne moom euh, nee na leen mais lii ñu ma atte daan d'accord mook on peut dire qu'il est toujours candidat. mais impérativement si mon professeur bi ma jàngal. lii mhm. may wax nii moo ma ko jàngal. moom mu delluwaat ne ma li ma la jàngaloon ay nax la ndekete. ah mais parce que ça dépend ci professeur bu fekkee sa professeur Ismaïla Madior Fall euh, ba ci biir tey jii mu naan ma bu jëndee cent deux millions de cartes je ne reconnais plus mon professeur franchement parce que moom nee na ma li koy valider da ngay dem constitution. Euh, jàngati kon noonu la alors donc ñu ne jugement bu définitif am na soxna Khady Sylla lan mooy jugement bu définitif en droit. je suis mooy toutes les voies de recours son terminées kenn mënatul dellooti ci àtte boobu autorité absolue de la chose jugée Ousmane Sonko ñu daan ko article 313 code de procédure penal ne la l'appel n'est pas ouvert au contumax donc mënul def appel tant que mu ngi nekk situation contumax waa léegi les voies de recours ne sont pas ouvertes. Mm -hmm. au contumax Ismaïla Madior Fall nañu voie de recours jeex na. voie de recours yi tijjeeguñ ko. Mhm. mënuñu koo tijji ci condition bi. moom mu ne jeex na. parce que jugement bu définitif de léegi yow loo xamante ne euh, mën nga ko mën nañ ko ouvrir léegi léegi Ousmane Sonko même bu acquiescé woon la décision dañuy dem appel même s'il avait acquiescé ne nangu naa daan bi ñu ma daan da koy may mu def appel bu contesté comme li mu def mhm. dañuy rejuger l'affaire ci même instance bi mhm. donc ki nga xamante ne les voies de recours moom exercé gu ci benn yow nga ne voie de recours yi jeex na donc kon situation de contumace bu Ousmane Sonko sax kenn mënul comprendre que ni kii état de contumace la nekk mais même bu ko nekkee condition bi mu ci war a mën a génnee mi ngi ni maintenant acte de radiation et sa finalité L40 wax na ne ki nga xamante ne moom euh, dañ koo radier danga ko koy motiviel notifier ko ko kon motivation bi mënul nekk notification bi yegg seegul mm-hmm. mais euh, yoon daf ko may mu mën a def recours L43 nee na ko am ah, bu ñu la ba nga téye ko foofu boo à partir de là am nga cinq jours. Mhm. pour dem ci tribunal d'instance bi nga xamante ne foofu nga inscrire. nga def fa recours. mais xam nga ni bu constitué woo contesté wala acquiescer décision bi moom moo xam nu mu koy defee bu demee defi ji recours bi dañ koy dugalaat ci list bi. Mhm. parce que boobu code électoral L43 nee na automatiquement soxlatul une révision exceptionnelle. pour moom mu mën a dugaat tant que recours am bi prospéré na rek moom dañ koy delloowaat ci saa si kon même même si am na acte de radiation contre Ousmane Sonko même si am na Ousmane Sonko mën na delloowaat boppam ci lu gën a gaaw. kon ñu kon léegi mën nañu comprendre. donc position des militants de Pastef bu la candidature de Ousmane Sonko ne souffre d'aucune ambiguïté actuellement. parce que il faut que benn jugement définitif. Mhm. teg tegu ci kaw boppam mais jugement bu définitif amu fi parce que mbirum Mame Mbaye Niang anamu. su euh, mu ngi cour suprême di xaar. Mhm. mbirum Sweet Beauté euh, ubbi wuñ sax les de recours. buñ ko mujjee jàpp les huit crimes nag moom xanaa instruction bi moom huit ans lay def parce que les deux crimes de Sweet Beauté bu ñu fàtte def na plus de deux bi huit crimes la. parce que le vol en question même vol bi ñuy wax. xam nga vol en principe délit la. Mhm. article trois cent euh, quatre mais vol bi ñu toppee Ousmane Sonko crime la article trois cent soixante-six de la mën a nekkee crime parce que vol bi dafa am circonstance aggravante dañu ne vol ak violence parce que vol bu su amee violence menace wala vol en réunion wala vol guddi c'est-à-dire circonstance yooyu mhm. daf koy def crime vol boobu noonu article 366 nee na réclusion criminelle à temps 10 ans lañ la koy daan kon huit chefs d'inculpation ya ñuy topp Ousmane Sonko yëpp crime la crime yoo xamante ne nag ay la yéwén appel à l'insurrection mm-hmm. euh, nu mu tudd Fadilou Keita mm-hmm. appel à l'insurrection Bassirou Diomaye Faye ñaar yooyu kenn kenn gis ñu téye lamset alors que gis nañ fii ci réew mi ñoo xamante ne nañ jël jaasi pour imposer ji candidature loolu du appel à l'insurrection taxaw sax na nañ dem taal <laughs> a doon appel ba pare joindre l'acte à la parole dañ taali kër Sonko nga xëy suba gars taali siège ba ah waaw dans ces léegi ñu def loolu noonu moom mi nga xamante ne dañoo toj otoom xotti euh, yërëm gazé ko nangam kooku mooy euh, coupable bi. d'accord alors monsieur Ndiaye ak euh, brouhaha bi ñu nekk nañ ci mbirum situation Ousmane Sonko ak pëccoxoo bi ñu ci gis est-ce xalaat nañu d'ici quelques jours le 28 la ñu wax ñu daal di dem ci parrainage yi xalaat nga ni ñi wax ni respecté na il se peut ñu élection yi bañ a am le 27 mun nañ ko mun nañ ci mun nañ leen jox dëgg. absolument parce que loolu je pense que si vous rappelez le président Boubacar ci benn émission waxoon na ko parce que ñoom actes yi ñu posé yëpp ça va dans le sens pour que dëkk bi dem vers un chaos pour que ñu profiter euh, proposer élection yi loolu du du bu ñu dàq lu mën nekk la moo tax aussi il va falloir que l'opposition notamment FN4 ñu xoolaat vraiment naka la ñu mën a réorienter seen combat parce que boo xoolee euh, dëkk bi. Macky Sall avec son régime seen euh, échec poussé na nit ñi àbbu ba nga xam ne actuellement ñëpp nekk au bout ñëpp mer. Mhm. léegi nag moi je pense que euh, li indi li lay li solution mooy il faut une réponse politique par rapport à ça bon côté ju ju justice bon par principe duñ ci wax mais. Mhm. il va falloir que. l'opposition euh, resserre les rangs pour que pour faire face à ça. opposition nan la war a taxawee. non parce que actuellement. dem nañ foo xam ne parce que yéen entre vous sax da opposition bi am na ñoo xamante ne ne dañu opposé opposé wu te duñu ay opposant loolu la ñenn ñi wax parce que gis nañu dafa am ay scission ci seen biir. xam nga xam nga li indi loolu mooy ñëpp dañ focaliser woon sur la candidature de Macky Sall depuis que mu renoncé les gars ont euh, relâché le mhm. combat alors ñun toujours on a di que c'était ce n'était pas le moment il fallait resserrer les rangs dem xeex. mais waa L24 looloo nekkoon seen seen dénominateur commun mooy mais y a eu un relâchement y a eu un relâchement ba nga xam ni actuellement euh, demande de manifestation bu ñu def ñu rejeté ko. personne ne bouge et personne ne bouge et c'est ça le problème donc bu ñuy wax bu ñuy wax on est dans un pays démocratique euh, boo mënee bëggee def marche ñu téye la d'ailleurs loolu moo indi sax gars yi actuellement li xewoon à New York bu fekkee mënul la permettre nga def marche sa dëkk voilà ce qui a poussé les gens moo tax. il en a pris nest pas jël na ci benn claque à New York. l'opposition je pense que loolu dina dina dina apposer. Euh, oui xam nga xam nga li am li li indi loolu mooy dëkk bi secteur ñëpp ñëpp ñëpp mer parce que dañ leen xoqatal mënoo marche mënoo def dara boole koog les autres problèmes yi nga xam ni moom la société bi jànkonteel ci wàllum éducation wàllum santé wàllum chômage gis ngeen li xew ci mbëkk mi avec les jeunes actuellement. ñuy dem di dem di euh, dugg géej gi pour outil vraiment un cadre de vie meilleur. mais lu ñu ci wax loolu nekk na argument pour mun a rafetlu la xew fële ci États-Unis waaye non xam nga li xewul États-Unis bu ñu la permettre nga manifester dëkk nga am opportunité ba nga xam dëkk fee moom boo demee il suffit nga ñëw def sa déclaration ñu encadré la c'est ça la démocratie loolu rek déjà dafa ruslu ci régime Macky Sall doo permettre opposant mu def manifestation pacifique li gënoon yomb mooy encadré ko indi force de l'ordre ñu encadre ñu def seen manifestation ku ci nekk tas dem sa yoon mais doo leen may fu ñu yàq seen nag voilà moo tax gis na ni li yi def barki dem en New York mais c'est c'est ça la leçon bi mu waroon tiire ni kat man war naa tiire une leçon ici ba nga xam ne fii opposant dinaa leen bàyyi ñu dem n'est-ce pas def seen manifestation wax ak askan wi am seen liberté de marche et de euh, nest pas euh, l'organisation de manifestation. Non, après les manifestations après euh, mun nañoo wax ni humiliation bu mu am fële ci New York dafa accordé benn interview à nos confrères de France 24 et de RFI la mu fa wax tu penses que le président a retenu la leçon. non je ne pense pas parce que xam nga toujours moom dafa habitué dañu naax mais bon li ñu mën wax rek mooy que ni moom jeexal na moi je pense que li ñu war xool mooy l'avenir xool comment. faire en sorte que le 24 février ou le 25 février 2024 ñu fal un président boobu de la République boo xam ni dina rassembler waat n'est-ce pas tous les fils de la nation. Mm -hmm. rassembler n'est-ce pas toute l'opposition autour de l'essentiel parce que actuellement 12 ans de règne yi vraiment c'est un échec total. Mm-hmm. actuellement euh, problème gouvernance moo am problème corruption wax nañ ko sànq secteur yëpp. am ay problème d'accord day mettre transition ñu dugg suñu dernier point waxtaan PCS jëngu taxaw euh, seen candidat mooy euh, monsieur Boubacar Camara en prélude ci élection présidentielle du du 24 février 2024 incha allah yan taxawaan yan mécanisme ngeen nar a teg en place pour dem vers les Sénégalais pour ñu mun leen accorder seeni voix waaw euh, ñun dañu am benn parcours parce que depuis 2018